Cheikh Tidiane Sissé, bu Imam Sissé, mon moyen à la rencontre du président Ousmane Sonko à ki nga Tene, euh, mon moyen, les leaders de Yévi Askan

président ñi ngi continuer di ah, cotisation bi la la <laughs> Express bi francs président Ousmane Sonko ça aussi un euh, signe ci li nga engagement engagement avec détermination c'est ça qui caractérise les jeunes qui sont autour du projet du projet Ousmane Sonko. donc loolu la rek euh, xale yi bëgg nañ ko bu baax baax bëgg nañ projet bi bu baax baax daa mel ni imam sise ci boppam Wow, imaamu juma Léona Niassène juma ji nekk noonu seen ginnaaw à la rencontre du président Ousmane Sonko mu di ay image inédite aussi parce que lii lu am solo la rencontre du spirituel et du temporel euh, même je pourrais même dire euh, deux individus tellement spirituels parce que pas pour rien nous avons Ousmane Sonko Mousselmi, aussi euh, solo image qui danaka, plébiscite le qui Léona qui Léona nga buñ ko dafa am histoire am l'islam fini nga Sénégal mi ñaanal leen amin ñi di amin pour la paix du Sénégal Amin. pour la victoire de Yewi Askanui, Amin pour 2024 euh, euh, Ousmane Sonko le président de la République imam Bango waaw daanaka plébiscite maintenant mat nous continuons caravane bi Ousmane Sonko comme nous l'avons dit depuis 2019 c'est l'espoir de la jeunesse mais il mooy ndenkaane mag magni, euh, loolu mu réalité Bo xamante ne kenn mënu ko euh, bañ ci ah, donc euh, je rappelle que nous sommes à Kaolack

donc Moudi l'on a maintenu le lu am solo qui digante euh, euh, la politique mais itam ak a mais une relation particulière parce que Ousmane Sonko da di koo xamante ni ci famille religieuse yi dafa am tolluwaay ak taxawaay am nu mel ci ak yi dafa yéeme ci lu bëri parce que ñu bëri jéem nañ tànte nañ laaj Khalifa Sall ngi noonu ak euh, Maimouna Bousso on leen euh, saa ak euh, Cheikh Tidiane Youm

ñoo ngi plutôt fi nga xamante ne moo di Léona Niassène Medina Baye la ñu njëkkee ci Cheikh Mahi Niass xalif général de la famille Niassène de la Fayda euh, moom moo fa newoon mu saafonte ak ki nga xamante moo di Ousmane Sonko ak leader yi échanger ak ñoom parce que moom day wax ni Ousmane doomam la Ousmane xaritam la tey ñu ñëw fii ñuy na itam euh, ñoom itam ñu wone loolu imam bi génn ci jumaa ji ak si ñaanal Ousmane Sonko yëkkati loxo yi ci kaw mu di loo en le spirituel temporel qui se rencontre qui l'ont xamanteni ni moi euh, li nga xamanteni euh, ci jikko du lo xamanteni on peut parler d'une quelconque euh, entente ou quoi que ce soit nous sommes ensemble et gars yi de nek di liggéey ci lo xamanteni modi la sauvegarde des valeurs sénégalaises la sauvegarde de la souveraineté nationale té lool suñu mag yu njëkk yi suñu mag yi les familles religieuses donc nous sommes dans cette dynamique là ce Askan Wi porte ce projet là à travers le président Ousmane Sonko donc nous continuons la procession fii nga xamante Moi moo di Léona rythme bi c'est normal parce que de bëri nit Mashallah, nous macha ni nit ñi bëgg on est aussi dans une cité religieuse donc on marque le pas et ci loolu le nous sommes. nit président Ousmane Sonko mingi eh, euh, euh, campagne bi la caravane nationale de Askan à la tête Ousmane Sonko le président Khalifa Sall ak ñi nga coalition ou bien la conférence des leaders de waaw ndenkaane mag ñi comme ni ma koy waxee Ousmane Sonko mi ngi noonu ci image yi ak suñu maam booy bi nga xam solo la fini ci lawna lañuy profiter euh eh, ak dajé nañ ak ki nga xamanteni modi le coordinateur de passe de Medina Baye modi Mambay Mambay eh, nek Baye Baye